comme kii yëre mu jiital si suuf. Mhm. boobu laa soloon après si la woon sama benn grand quoi dafa ñëw ci pour xool ma ma ne ko léegi boo dem kër da ngay wax sama booy pour ñu indil ma yëre bu diis mais dañoo indi ma yére bi ak tubéy mais benn grand grand bi monté woon jour boobu ma may ma sol yëre ak tubéy ñaan ko ñaan ko ba son nangu ma may ma sol yére ak tubéy bi si la benn grand bi ñoo ku baax comme maanaam suñu ñëw léegi-léegi lekk bi day des. ñu ngi koy jox quoi muy ci si la ñoom ma ñaan ko quoi man si la ma dugal yére ak tubéy ma sol ko guddi boobu nag la premier jour mooy tëdd quoi euh, dafa tombé si jour dimanche si lendemain lundi la ñuy yóbboon euh, kii bi ne tribunal. Hmm. Hmm. d' accord ok léegi mën nañu ñëw nag léegi ci ci ci l' temps tant attendue ah muy euh, le séjour carcéral Matar allez-y <coughs> guddi bu njëkk bi en prison. fouille bi naka la demee est-ce que vous avez été soumis à une fouille corporelle ak yooyu noonu ak euh, vraiment biir kaso bi naka naka la fa demee foofu. waaw gars yi fouille nañu. ban ngeen fa yegg déjà. fan euh, foofu noonu ñu fa àgg ay côté. Rebeuss. 18 heures. gars yi julli nañ tàbsaan ba pare. Euh, mu doon li nga xam ne tey dañ koy ñaawlu si si si biir yi. lan ngeen di ñaawlu. lu ñu fa dund. lan ngeen fa dund. parce que lu ñu fa dund lañ bëgg a wax. allez Sénégalais xam ko. ba ñuy dugal biir rëbës comme ni ñu waxee sànq dañ nañu fii beneen dund la bi traversé asamaan si lëndëm na trop ñun ñëpp nekkoon si oto bi xamoon nañ dañuy jàll tey parce que procureur bi ñëw nañu signé bañ jàllee nag ñun ñëpp si oto bi ñu bëri triste nañ même ñun ñii sax pour dire la amoon nañ un peu mais bañ duggee ba ba gis la situation gis même ku loon ñu wat wat sax moom dafa waroon génn jour boobu noonu macha allah. léegi kan moo defoon rasta ci yéen. kooku waxoon na day ñëw. ah ñëw ñëw bañ duggee ku ñu wat moom dafa waroon génn après moom au moins mu xaw ñu expliquer lu lu ñuy xaar. maanaam. maanaam tey li nga xam ne moom dund nañ ko ba léegi maa ngi ñëw euh, lu ñuy doon xaar mooy que après ñu dañaa gaar fi nga xam ne mooy infirmerie parce que dañoo dañoo regarder la situation mais dañoo amoon drépano dañoo am drépano ñu dem ñu jox ñu trois comprimés fer. bañ ko naanee ñu ne en tant que ku am drépano wala wala ko am beneen maladie soo ñëwee dañu jox comprimé wala ñu jox la paracétamol mu ne waaw léegi Sénégal moom nu mu demee nii parce que maa ngi doog a dugg benn pas expliqué ñu mun nañu fa lañ dem ñu ne ko ah ñu ne samp trente lañu nar a yóbbu ñu wax ko lu ñu doon mooy journaliste bu ñu doon moom mu rassuré ñu nañu fii doo fi yàgg mais ça sera pas facile. ba ñu demee nag ñu jàll chambre 30 man sama mbokk bi El Hadj Malick Gueye euh, moom ñoo ñu bokkoon chambre 30 ba ñu duggu see gars yi ak lu ñu accueillir mooy maa ngi leen leen di ñëpp li ñu accueillir mooy sourire avec maanaam loyauté avec joie. Mm. parce que chambre seen chambre muy vieux grand vieux ñu bokk dëkk fi ne mooy. man chambre ngeen nekkoon 30. Mm. ñu bokkoon dëkk mooy Malika mu ne ko chambre bi grand vieux mu doon ko baax dañuy ñëw mu staf ñu boole ñu ak laay jox ñu lekk. mais ba ñu demee ba war a tëdd. Mhm. foofu un moment terrible un moment boo xam ne duñ ko mos a faat àdduna ñëw ñu ne dañuy paquetage ñu waa ji luy paquetage mu ne dañ di entaché kii tànkam nii kii boppam nii des fois sa tànk sax ci dënn nit lay fanaan ñu ne ah dañ koy muñ parce que ñu fi nekk ñun gënuñu leen mais la nuit ñu ne c'est mission moom lañ koy jàppee duñ ko jàppee dara lu mission. ñu xëy na yàlla moom lu ñu war a wan parce que mieux vivre les moments pour nga mun ko raconter. Mm. à l'agréable soo dundul kaso bi munoo munoo ko raconter dañoo ko dégg si ay chanson ay ngaaka ay ñëpp ñu koy wax mais lu ñu wax yooyu yëpp prison dafa métti surtout rëbës. tey nag bañ nekkee chambre bi benn douche moo fi nekk dafa la deux douches. vous étiez combien à peu près. chambre bi à peu près presque ay ñun bëri ay ay côté cent cent vingt yooyu noonu mais yeneen chambre yu bëri jël nañu ay xibaar foofu noonu gars yi ñu wax bañ nekkee si cour bi que foofu noonu am na maanaam yeneen chambre yi ay deux cent personnes. bu toll naan à peu près chambre bi nu mu toll. chambre bi presque chambre bu ndaw ah chambre comme benn salle la nii rek une petite salle ak ñaari douche ak gars yi fu ñu teg seen bagage si kaw placard bi pour man loolu dañ ko war a changer maanaam changement bi mooy lan suñuy xaalis xaalis bi Sénégal bu ñu jëlee si mbay mi bu ñu jëlee si sàmm gi bu ñu jëlee si napp gi prisonniers bu ñu leen fàtte si Sénégal lañ bokk te ñoom ñëpp ñu si bëgg ñu si nekk chaque jour. Mhm. ñaari toilette pour mbooloo boobu yëpp. waaw chaque jour dañuy rang pour toog ku war a sangu ba heure ngay sangu même pour julli fan suñu la woowee heure 6 heures du matin pour maanaam euh, ñu bu ngeen war a génn ñu rappel leen pour ngeen mhm. Mhm. jàpp sax. des fois day métti ajuma bi sax laa lay tegal nii dañuy sélectionné ñi nga xam ne war a julli te loolu rafetlu wuñ ko. maanaam ajuma ah, ah, ah, du ñëpp war a julli. mais du ñëpp war a julli parce que dañuy defaat ñi ñu génn. du boo ko ñëwee bu fekkee sa heure cours bi ci biir mooy julli si boppam pour norme prison cours bi si boppam dafa xat dafa xat te ba njëkkee yeewu également dafa bokk ci état bi on a ñu def. c'était la première fois nga dugg ko. c'était la première fois c'était la première fois. ma daal nga ne ma ne ma ne c'était la première fois ma ne premier jour bu ñu bu ñu njëkkee hmm. tëddee ba yeewu phase nelaw ba ñu jugee ñun bokk na si ñu njëkk a jug dañaa xool gars yi xoolaat gars si suñu yaram dafa daw mais si lañ xam ne fii yëfu góor la te ku fi jaarul jaar fa moo gën ñaanuñu ko kenn nag mais am na ñoo xam ne foog ñu jaar fa pour xam surtout ñun métier bi ñuy def ñun on hmm. porte le Sénégal en haut. dañ hmm. koy wax mais tey mu ne yow yow yow yow yow sax mu ne yaa may cookaas bàyyi ma cookaas ah bàyyi ma cookaas maanaam tey chambre 30 chambre 14 chambre 9 ak chambre bu mu munti doon même su nekkee sax chambre 50 wala 75 bi nga xam ne tey foofu la Fallou Keita tane na ah même su nekkee foofu tane na lépp la war a yemale am na chambre yoo xam ne ay tubaab ñu ngi fa Sénégal ñu ngi fa borom doole yi chambre yi nekk ak booy banlieue yi. lan bi tey booy banlieue si boppam grand euh, soxna si. maa mm-hmm. ngi jégalu. Mm-hmm. Euh, tey booy banlieue amuñu seen yaay day daw dépense seen papa day daw dépense ay chauffeur de taxi lañuy doon wala leneen leneen leen su fa duggee su amul taxawaay bu bu bu bu mat maanaam tey si paquetage bi lañuy tëdd si jagan bi la ñuy lekk jagan bi mu doon lu mel ni lu ceeb bi comme day am lu si lu guub muy saf parce que ñun ñu ngi doon indil lekk mais à un moment dañuy def ni gars yi sama copain moom bàyyi ma dañ ne dañuy lekk bool su jotee dañuy tibbal grand verre ñuy jox dañuy jël suñu loxo dañuy raxasu parce que bisimilah la ñuy jiite dañuy lay njëkkee lekk ba suur naan si ndox bi waxtaan ak gars yi gars yi dañuy xool parce que dañ koy dund ñoom l'expérience ñu foofu ñu foofu lañ tegoon suñu idée moo tax affaire bi xaw ñoo sonal mais nag jagan bi ceeb lu ceeb normal wala dara ngeen jégal ma si kàddu gi grand pape mais on doit war wax la vérité ñun de la vérité moo cest benn yoon la fa gaa yu bëri dem douze wala deux fois par semaine te soo ko soo fa demee sa lu noir ngay génne ya gaa yi jégal ma ci kàddu gi te loolu noonu ay feebar yu bëri la lay jural gaa yi dañuy woqatu parce que ndox mi baaxul même man góobu leen ndoxu robinet la parce que su nekkee ndoxu robinet tamit gaa yi toppatoo wuñ leen d'abord nag ñun suñ kàddu mooy la ñoom ñëpp dañ leen di nuyu. chambre ba. sangu bi nag comme ci ndox mi nga ne. foofu maa ngi ñëw ñoom ñëpp parce que gàcce ngaalaama ñoom prisonniers parce que tey dañu doon dimbalante ñun dañuy indil lekk te waa Fadilou ñëw jox ñu boolu ceeb mais suñ ko tegee da ngay gis boobu boobu ku même soo da ngay fier parce que foofu noonu daa si si si daara yaa ngi am looy ut ñu ñëw ñu jàngal ñu xasida ñu jàngal ñu maanaam tey. ay iji ay firi yàgguñ fa nag tamit suñu xëyee gars yi dañuy maanaam taalibe bàyyi dañuy génn ñii di ñii di ñii di wéru maanaam gars yi am na yoo xam ne dañ fa dugg changé parce que am na yoo xam ne am na benn waaj mu raconté moom sa moom ñu koy woowee sunub sama ba sama grand la moom la mu jox may lekk également mu maanaam mataar su ma génnee s'il te plaît kaasal ma de man xaw ma woon sax dinaa ñëw branche rek te yow c'était une mission kooku yàgg na fa mais dossier te loolu du yoon. te tamit ndur na également cas ki nga xam ne mooy kaawu Fadilou Gadio wala kaaw ñeneen du ñu leen plaider parce que ñoom ay détenus politique lañ ñun on est impartial su li ñuy wax mais ñoom waxtaan nañoo ñoom ay Abdou Aziz les forces spéciales ay buuna waxtaan nañoo ñoom ay kàddu de sagesse ay kaddu maanaam yoo xam ne dafa ñeel Sénégal ëllëg parce que man nee naa leen grand Fadilou ma ne ko ah man de li ma indi fii moom xam naa sax war yoon agsi Fadilou Keita nga wax wala Fadilou ko war yoon agsi mais dama lay dénk ñaar on va on va vers des élections te yaa ngi dindu garde à vue xamuñu métier malgré yaa ngi secteur cinq cinquante mais bis boo génnee ba yàlla jox leen nguur xamuñu nag ba xam di ngeen jël nguur sa changer leen affaire yi parce que état c'est entre l'état et le pouvoir te état moom moo am autonomie tey na man kat avec ces différents ministères na tey pare naa en tant que ministère de justice sax moom ne pare naa tey pour defar prison yi maanaam sa coûte rien du tout Sénégalais ñun am nañ main d'œuvre bi quoi. grand pape am nañ main d'œuvre bi am nañ ñu koy liggéey am nañ euh, maté matériaux yi am nañ ko am nañ àll bi. mais bu ñu ñëwaatee ci prison bi lan nga fa dund lu la gën a metti lu ma gën a metti euh, soxna si mooy li nga xam ne tey mooy lu ñu doon également parce que loolu lu ma la wax sànq dafa ma metti parce que day indi feebar avec ñëpp xam ne température humide ak te nekkul chaque jour ngay xam ne di nga sangu wala doo sangu lu si bëri sooy sangu da xëppoo. xam nga foofu mun nga fa jëlee jàngoro bu bëri te normalement chaque détenu devrait avoir un médecin même su nekkee sax mënul nekk au moins ñu ne chaque une une semaine wala chaque jour dina am kenn benn groupe benn chambre bu ñuy càmbar indi ay médecins pour ñu ñëw xool ndaw lañ. Mhm. te seen ñuy jaaxle seen yaay mënuñu nelaw man bu ñu ma jàppee nii vite fait ak nu mu gàttee nii mu ne comporte comporté wu ñu ne mais dama ne ko moom laa njëkk woo ma ne ko mère dañuy sant yàlla. ñun lii nattu la waaye jàppee wuñ ko nattu ko jàppee am ngëneel lu mhm. gën parce que si biir si biir chambre euh, trent bi mhm. tey euh, dafa lëndëmoon trop amul làmp am na làmp mi dafa lëndëmoon si ay si ay idée moo chambre 30 ak studio bi ñu nekk di ban moo ëpp mun naa ko ne waaw hmm. fii ba fii la de fii ba fii la de fii ba fii mais bëriwul na ay ñi nga xam ne tey maanaam lu ñu def seen cas amuñu doole amuñu am jiw avocat moo tax ñu jëlee def ay ak fii laa. mur bi mooy fi ñu nekk ak. maanaam xaaju xaaju maanaam boo doon tëddee moom du soo tëddee. Hmm. Paa Moussa bi soo tëddee. lu ndaw sax xat lu ndaw xat nii doo ko am parce que da ngay tel tellement da ngay xam nga tey bis bi ñu amoon possibilité tey ñu ah leen droit ñu prison def reportage bi loolu mënuñu ko defal te pourtant yi nga xam ne ñoo yor euh, droit affaire de droit de l'homme dañ fay ñëw mm-hmm. mais ga ban xibaar lañ jot mooy ñoom suñu fa ñëwee dañ leen xaw a ber feneen defar leen chambre di pentiraat fa nekkee sax ñu leen pentir seen chambre yi ñu ñëw ñu te loolu du yoon Sénégal lañ ne xaalis bi ñuy fooyee nañ ko def si prison yi dimbali gars yi xam nañoo mën a dimbale di leen conscientiser utal ay psychologue parce que soxla nañ ay psychologue ñu si bari seen xel yi toogul parce que jàpp nañu sax ñoom duñ génn juge chef de chambre bi dix ans. daa am ñu am foofu ay problème mu xel. traumatisme. waaw kay déficient mental. très bien très bonne question bi ñun bu ñu nekkoon y avait un fou man man jàppee ma ko fou dina lekk si jangaa bi mais de sagesse sax bi ma ne la damay essayé si mot bi parce que moom loolu la doon def moom ay mbokkam sax.

mais su demee doom doom yi di ko nëmb nëmbal parce que loolu nattu la suñu borom la waaye ab lafañ it également loolu du yoon c'est-à-dire que prison bi méttiwul na métti bi nga xam ne tey foog nga am xolu muñ dëgg ak yaqin pour mun fa dund parce que ñi fa nekk saa yu ñu yeewoo yeewu rek xam ne tey ñoom amuñu liberté dina dina leen tiis trop te ñëpp dañuy rêver ah. Mhm. mais yaa ngi doon junj léegi kaaw ki fa def 10 ans maa ngi dégg nga def. waaw ah. xam nga ki fa def 10 ans moom suñu chef suñu chef de chambre la. moom non jiyee moom kooku kaam dañ ko war a xool dañ ko war a dimbali. 10 ans te kenn mësu ko àtte. waaw kenn mësu ko àtte léegi si loolu noonu dafa am kaaw mooy imam boobu ñu jàppoon pour affaire de maanaam euh, apologie du terrorisme. imam jànku. ah imam jànku wala jànku libéral imam Ibrahima Diédji. c'est vraiment imam Ibrahima Diédji libération sax bind na si. ah bind gars yi ñu ngi daw revue de presse ñu ngi nekkoon si en garde foofu noonu tribunal hmm. mais imam ko li ñu ko toppee. apologie de du terrorisme yi nee na moom parce que ñoo bokkoon fi nekk dina mataar man vidéo laa def pour conseiller le président de Macky mais dama la ko est que am nga droit est que juumoo tamit si kàddu gi amoo loo wax mu ne te sax sama jabar dafa ëmb bu am 6 mois. moom Ibrahima Dieye. te nee dëkk. moom mu wax a dit. parcelle la dëkk. non vidéo boobu. vidéo vidéo bi ñun nag xooluñ ko normalement mais moom ay kàddoom la ñuy jottali parce que moom loolu la ñu waxoon. voilà su leen demee après joxe leen suñu kàddu mhm. jabar ji dafa ëmb aussi parce que la dëkk ne daal demoon jàngale alxuraan après gars si lañ ko jàpp ñu ne lan la ñu ne ko dañ lay toppee li nga xam ne mooy apologie du terrorisme ak mhm. rëbës te ni moom lañ jëkk a jàllale te ko kaw man dama bëgg gars jàpp si amul avocat taxawagul mandat dépôt lañ ko dóor te mandat dépôt ñi xam nañ affaire terrorisme kaw imam Alioune Bala ñu ñëpp dañ dañ daf ak yeneen cas mais mais kaw Ibrahima Diédhiou c'est am na jar na taxaw 10 ans kenn mosu leen jugé. dafa war a génn boobu nga wax xaw ma koy toppee. xaw ma koy toppee wallaahi mais jàpp naa ne 10 ans suñu ko tëjee. war soo génn war ah. pen la war nga njëriñ. war nga njëriñ mooy lan formation bi d'abord foofu dañ fa war a def une de formation au niveau de la prison. bu année quoi pas ay bibliothèque di teg ay livres ay di lire noo gars nga lire. mais ci réinsertion sociale la bokk de. activité socio-éducative am na foofu sax un jardin potager dans le cadre de la réinsertion sociale. si la bokk dina leen permettre ñu xaw a maanaam euh, épanouir et tout njàng amal. parce que parce que Rebeuss maison d'arrêt la maanaam ñi ñu atteegul ñoo fay nekk. waaw ñi mais xam nga li nga wax rek ñi ñu ñoo fay nekk am na ñoo tamit atte nañ leen ñu flank laa ñuy entaché mais am na ñoo xam ne comme sama gannaaw ñoom Fadilu taalibu sëñ Abdou Kadir maa koy nuyu moom ba léegi tamit dossier kenn xoolu ko mais moom correctionnel la nekk kon boobu kaam dafa na fa. yàgg na fa ay 3 ans 2 ans. nit dof foofu la nekk. nit dof nit dof man si man je l'ai vu. chambre 17. chambre 17. comme comme yan genre ensemble comme 30 bi la wala. waaw euh, chambre 17 yaatu non yaatul noonu quoi ak lalam. parce que man maa ngi sama 14. maanaam ñu dof seen gaa bu ma gis tey. loo bëgg wax ci kaw li dof ngeen même. bien sûr non parce que bëgg nañ xam confidence yi ñu leen di dégg. parce que jusque là ñu PV euh, version PV rek la ñuy dégg ci ñoom. mais pour la première fois yow mi nga xam ne pratiqué nga ko hmm. tase ngeen prison au moins def na la ay confidence la vérité ci li leen di jàppee est ce que li leen di bindal dëgg la ou xam nga bu ñu ko gisee waxtaan bu fii ma ne ko ah man de je suis parmi les dëkk bi mais dañ ma jàpp mu ne ma booy yow yow lu tax nga ay def loolu mais nag courage quoi mais ba ma analyser la situation mu ne c'est un gars très courageux parce que malgré tey famille ñu ngi koy xaar pour mu génn kon gis nañ doomam ci manifestation doomam génn mais neexuñu mu nekk prison parce que c'est un rappeur la voix des sans voix comme ni Walfadjri rek rek di wax yi nga xam ne tey amuñu kàddu gars yi dañ leen war a dimbali nit dof tamit moom am na kàddu de waaye dañ ko war parce que rappeur am na droit wax ci politique am na droit wax ci justice am na droit wax ci lépp mais avec modération également dañ koy ñaanal rek euh, gars yi bàyyi. bu weesoo nit dof yan yeneen célébrité nga fay gis. Abdou Aziz. yaa ngi wax léegi Fadilou Keita nit dof force spéciale yi mooy force spéciale. Abdou Aziz Niang waaw buuna gis nañ ko. ak Fadilou Keita ak ñeneen ñeneen ñi nga xam ne tey am na benn booy boo xam tamit Pape Grand Pape dafa kooku depuis événement mars 2021 amuñu ah oui son nom a échappé kooku ba mu ñëwee ñu ne ma le 21 mars mu ngi fa benn booy bu dëkk Mbour. depuis manifestation mars ko jàppoon ba léegi ma fa mais dossier am ba ma ko laajee dana ba léegi dara dara xewul dara xewul mu ne ko ah nu mu amul avocat mais booy koy dund avec dignité. Hmm. booy koy dund avec chaque jour leur parole le moo Sénégal di si génn dañuy wax si Sénégal parce que da ngay xëy toog benn grand agis ñëw doon la kafe na la monsieur mon journaliste jox la kafe bi nga naan. café bi fee nii rek nga naan gars yi passante benn café ñëpp passante ko a dinañ guux loolu mooy suñu réveil matinal léegi la suite c' est l'histoire qu'on doit parler si politique ji parce ñu ngi seet ñu ngi seetaan on va permettre à imam moom tam mu expliquer ñu un peu son passage en prison waaw oh, ginnaaw bu ñu yàlla jul seen sallallahu alayhi wa sallam <coughs>